taala wa barakaatu sëñ Abdou Lahad Bousso ñu ngi lay nuyu di nuyu mbooloo mi la fi yebal muy waa daayira Muqaddamatul Xidma di am mbégte nag ci yëg gi ñu am ba tànn ma ngir ñu soññee wala ñu fàttali wala ñu waxtaan ci ormay jumaa ji ak jëmi sëñ bi gën na maa neex itam biñ ma yabalalee Abdul Ahad buñ sequt woon dara te nga tudd Abdul Ahad rek daf may neex rawat nag ñu seq bokk gi seq xaat gi ñu yabal la fi yéen nag daayira Muxaddamatul Xidma bi ñu wax sëñ bi doo ko tuddoon bu yàgg jëkk muy am te wi ngeen féete day waar wu am solo ndax sëñ baa ngi wax fa kullu man xadama ni aw saara xadama boobu mooy xadma saara mooy ñuy jóg di di siyaare sëñ kon gis nga ñaan gi mu ko ñaanal fa kullu man xadama ni aw saara fa naj yi wax loo aw saara kon day mel ni bu sëñ bi waxee itam woote woo woo woo waa géej jëme leen ci seen borom wax yaa ax la bari yaa ax la baar yo ma julli wari baar dañoo ñëw ñu ñëw nag doon murit kese doon jullit kese waaye yëfal sax nga ci ma ndax settewut waa jéeyi la woo ak kon ñëpp ñëw ci màggal gi bu ñëwee nag yéen ñi fi nag yéen am ak sàmm ak ràññeel te yàlla dimbali ndax ay nit ñu yëw ngeen di ay bokk dañu ko di mbokkum sëñ bi li sëñ bëgg ci dëkk bi ngeen war koo sàmmale te di ko sàmm yéen a ngi waaye nag comme daa woote te ñëpp wuy si te bokkul ñu ñu wuy ndax daa am ñoo xam ne adduna kese leen fi indi am ñoo xam ne àllaaxira leen fi indi am ñoo xam ne ñaar yëpp leen fi indi te ku ne boo ñëwee ba dal ba nga dem da ngay dem ci siyaar ci sëñ ba wuti ko fa ku koy wuti nag daa am nu war a mel ndax yoon wi génn da cee bokkut sëñ bi mu ne laakin unaadi kulal bilaa di la wax réew yëpp ilaa himaadi bilaa jilaay bilaa jilaay mooy am leen du ngeen dàq sëñ leen dàq kenn sëñ leen génn kenn kon nag ñi ñëw ci yéen ñoo war a am meloo ñu war a ba des leen jéppi des leen toroxal nag daa am koy sàmme ndax aw nag moom nag moom benn yar rek nga yor waaye nit nag moom kenn ku ne ak na nga koy sàmme te ki ñëw ngir bëgg a yokk ngir bëgg saafara dara te mu wóor na ni barab bi ku fi ñëw te li ngay saafarawu saafarawut ci yow la waaye du du ndax duñ la xotti orma ku andi nag melokaan yi nga xam ne sëñ bi ña nga fa fekk defuñu la dara yaa def sabab la tax ñu génne la ndax génne daa bokkul ci yoon wi comme ni ma ko waxoon léegi kon nag bu ngeen ñëwee fii ñuy soññi taalibe yi nga xam ne ñooy jóg ngir ñëw ci màggal kii ngir sàkku barke ngir tëbb leer ndax ñi fi ñëw ñëpp daam la ñuy tawat ay feebar ñii ay ràgg-ràggi xol ñii soxla su su su su su mënta faju te ñëw fii day fayu loolu sëñ bi wax ci wante maxmas takka mustakin aska saa yoo ñëwee tawat njàmbat mu saafara mu njàmbat la kon nag nun ñi ñëw di sàkkoo saafara suñ njàmbat nag njaru melow jullit piir melow murit piir melow taalibe piir jikko yu ñaaw ye nga xam ne dañ ko am buñ ko indaale Touba nañ ko bàyyi fañ foofa surtout nag jëm ci jumaa ji bu dee jigéen daa war a muuru ba ni malaj yor kursam baagee siyaare ñaan te bañ faa toog def leen boo dee jàng xasida boo siyaaree mën ngaa dem ba sa kër nga jàng xasida waaye yaatal gan ñi ndax foofa ñëpp koy soxla te mbooloo fay daje te ñëpp xaj ñu fa kon nag ubbi xol yaatal xol yi soo toogee nag def sa siyaar ba noppi ñaan ba noppi toog fa bëgg faa def ko ab garam place wala nga toog faa def ab jàngukaay foofu du jàngukaay barabu siyaare la bu la fa nit fekkee yëkkati la bu ko meree yaa tooñ sa bopp ndax ku ne wax na ci kilifa yi wax na ci ñëpp wax na ci kenn xatalut dañoo yaatal waaye nag yow mi ñëw itam dangay yaatal ngir ñu topp sa gannaaw war a ñëw siyaare sëriñ bi loolu mooy orma ji war ci suñu digg ak sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nag moom ni mu defoon sallallahu alayhi wa sallam bis bii ko may te bis boobu itam da ngeen ñee duggaat ci biir tax xarat ci yow ma sabti saamina xasal li xidmatil moxtaare ba tey xidma duggaat na ci yéen kon yéen mille chance ngeen am nekk ci dëkkub sëñ Touba di taalibeem boole ci di mbokk la xarabam ba noppi di xëy ci moom suba ngoon lu ko gën a kawe boo gisee mag ñi ku mel ni sëñ Saliou daan nanguwu ñu tudd turu sëñ Touba lu bari di ko tudd nee na tur li tax nga war koo tudd mooy lu mel ni tremblement de terre amoon suuf si yëngu nga tudd ko suuf si di tekk kon nag dem ba fa moom di di di di ko woo ci ndoo xam ne jaaduwut boo gisee wérat yi gis na ñuy yor ay tur yàlla di ko wérat dañuy woo suñu borom te nuñ ko wurte wooyee bu ñëwee nag dañuy alko moo tax ñii di dof ñii di ñii di feebar di la saddum jine or ma ja mat da ko koy jox nit ki boo koy woo dangay dangay da ngay sàmmante ak xam sel sel la jub jubal jiital yar ak teggin soo woo danañ la wuy la nga ñaan mën na mën na koo saafara lu dul benn benn ndigal nag mooy li am njariñ lu dul ndigal amul njariñ te kat ni ab sëriñ du bëgg nit ba fa am njariñ jox ko te topp ndigalam boo bëggatee ci sab sëriñ lan na njariñ jox koy njariñ sëriñ ku koy joxe njariñ mu dee jox ay njariñ bul jaay sa bopp bu ko nag xamal ne que deefu jox ludul dul li ngay defa ko wax ak dëgg daal am xorom loolu sëñ bay jaxate wax kon nan ànd ak sëñ Tuubaa nañ war a ànd ak moom te jox ko gëddaam sàmmonteeg moom ndigal sëñ Tuubaa nag yi sëñ Muntaxa wax nañ sàmmonteeg moom suñ kem tu lay kàttan kuy ñëw ak ñi fi dëkk ikraamu duyoo fi ul xulóob laa mil ul juyub mil ul jufooni laa mil ul suxuni teral gan moom mooy ubb sa xol bégal ko waaye du fab xaalis def ci poosam ba mu fees déedéet sa mbari bët itam nga ubbi ko mu leer waaye du fab ay palaat ak i booli duyal ko kon gan ñi ñëw ci noonu nañ leen teral ormaal leen siggil leen sagal leen ba buñ delloo xam ne ñëw nañ sëñ tubaa waaye fekk nañ fi njabootu sëñ tubaa fekk nañ fi taalibe sëñ tubaa ñu taral leen ormal leen sigil leen sagal leen ki ñëw itam nag na yor melaw jullit yor melaw taalibe ni ma ko waxoon neex a bot ki neex a boot nag mooy eh, ki nga xam ne tëkku tirabal luy jame soo takkee luy jame dañ lay wàcc de kenn te loolu mooy indi comportement boo xam ne du melaw du melaw taalibe ci jumaa ji ndax am na ñoo xam ne sàcc leen fi indi am ñuy sàcc ay portable ñoo xam ne seen yoon ci yooyu yooyu la ñu ni léegi nag mbooloo ma fa nekk nag di saytu ndax ñoom jàpp nañu waa xet ma jàpp nañu sàcc amul ndax ku ne la nga nàmp ngay toqamti ko hmm? ndax amu fi boo ko fi indee nag bañ toroxal la yaa toroxal sa waaye dayre ba toroxu la ndax ñu sëñ bi tànn teg leen ci wetam ñu mat lañ ñu matal lañ waaw li leen mat a sant yàlla mooy su ngeen fa nekkuloon nu ñu ñoo fa waroon nekk kon nag ñaanal leen ak jàpp leen moo na war nun hmm. ndigal nag sëñ Abdoulaye daa ne dafa dafa dafa tàng ni kani waxee ne xorom xam nga kani dafa tàng wexut xorom moo wex waaye soo ci duggee day mujj sedd ne glace neexe lem noonu la ndigal mel kon nag ndigal li jox nañ ko sàmm fi may daaneele xam naa danga ma danga ma dóor xel sax mënu maa waxtu tudd ma sëñ Saliou <laughs> mënta nekk ah ku la jàggarul mooy sëmbar waaw waaw moo moo sa dayr waaw waxuma ko waaye sëñ Moussa Saliou ma ko nettali ni ma sëñ Mor Mbaye Cissé da jox euh, ak Bawol café comme li ngeen di bëgg a naan xaw ma mu lee daal diggante yooyu cafetière café wala mu lee ko jox ko ne ko sa bàyyi ne nay naan café te fekk dawut naan boobu daa dawut naan café soxna Asou Gawa itam yónni fa café ne ko naan naan café Moussa nee na man la wane ma kaay seere ma su ma faatoo nga xam ni wéy ndigal sëñ Tuubaa moo fi jëlee daal di naan café ga ba tey muy naan café wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf